asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm tey jii li ay di jàmbata ci biir autolikaay yi la ca gën a fës moom mooy dellu si waata gi nga xam ne njiitu réew mi bëgg na poste premier ministre daal di dellu si ci nu mu gën a gaawee ak kii di Ousmane Sonko mi lànk carré ne du xaatim lépp lu jublu ci wàllu charte de non violence autolikaay bii di Sud Quotidien kon di ñëwaat ci njiitu réewum Sénégal di Macky Sall moom mi nga xam ne démb ci najeb conseil des ministres daal di xamle ne bëgg na ci nu mu gën a gaawee poste premier ministre daal di dellu si waat suñu nattangoo bii di Mariam Tigo du ñu xamal ne Macky kon démb li moo nekkoon surprise bi mu daal euh, jagleel ñi nga xam ne de ñoom ñooy ñi nekkoon ci ndajeb conseil des ministres ndaxte démb la leen ko daal yëgal sama natango bi di ñëwaat ci poste premier ministre ba ñu ko neenalee ak léegi lam moo fi xew ci diggante bi li tax ba njiitu réew mi bëgg cee dellu si waat li am ba des moom mooy ne bu ñu yoree cuulikaay bi di la soleil moom mooy ne démb ci wàllu ndajeb conseil des ministres ñoom sax daal dina de loi bi nga xam ne day indi coppite jëmale ko ci ndaxte poste premier ministre ba ñu supprimé woon ci atum 2019 démb la njiiti réew mi daal di xamle ne dinañ ko fi taxawalaatee ci ni mu gën a gaawee l'observateur ñu nettali sax démb ba Macky Sall xamle ñi nga xam ne de ñoom ñooy jëwriñ yi ne poste premier ministre dina ñëwaat ña ca ëpp daal di tiit ndaxte yaakaaruñ ko woon foogeewuñ ko woon te it xaaruñu ko woon julikaay bi di l'observateur di ñëwaat sax ci lan moo waral tey jii kii di Macky Sall bëgg nag gouvernement bi daal di am njiit ñu ngi ñuy xamal ci biir julikaay bi di enquête ne dëgg bi nga xam ne moom moo nekk ci wàllu politique dong de moom moo tax ba Macky dellu si waat ginnaaw rax ci dolli ba muy daal di nee na sax poste premier ministre loolu moom nekkul woon xalaat gu baax léegi nag la koy soog di xam jolikaay bii di la témoin ne nañu ko waxte dee fast track ba Macky Sall bëggoon moom moo lajj loolu moo tax ba mu toogee ab diir xool ne li ni mel moom munul wéy ci la daal di xamle dinañu indiwaat poste premier ministre jolikaay bii di critique di ko rafetlu ndaxte mi nga xam le ne poste boobu nga xam ne dañu ko fee jëlee woon lu am solo la ci nu réew te njiitu réewum Sénégal di Macky Sall ba mu demee ba gis ne li ni dafa war am ci daal di dellu ginnaaw 24 heures moom la muy laajte léegi moom mooy kan moo nar a nekk nag kii jiite li nga xam ne moom mooy gouvernement bi suñu natango yi daal di wone nataal boo xam ne Macky Sall ma nga ca ànd ak ki nga xam ne de moom mooy Amadou Ba loolu kon di firndeel ne ñoom am nañ ci njort ñu jàpp it ne ci biir culikaay bii di réew mi quotidien suñu natango bii di Assane Samb moom it gis na ne kii nga xam ne it moom mooy Amadou Ba suñu maytuwulee moom la ñuy teg ci wàllu poste boobu ndaxte sama naataango bi daal dinay gis ne keroog ba Macky tabbee ki nga xam ne nag moom mooy Amadou Ba jox ko mu nekk coordonnateur bu benn bokk yaakaar ca Parcelles Assainies ñëpp dañoo amoon yaakaar ne loolu day fernde rek ne kii di Amadou Ba bugguñu ko def mu nekk maire moom am na post bu gën a mag bu koy xaar li ci kanam raw li gët ñu wax ci beneen xibaar bi nga xam ne tey jii culikaay yëpp daal di nañ ciy dellusiwaat mooy kii di Ousmane Sonko mi lank carré ne moom du xaatim lépp lu jublu ci wàllu charte de non violence ci biir culikaay bii yi di ñu xamal ne kon Ousmane Sonko la mu waxoon démb ak barka démb tey jii la ci gën a ngoy moom nee na charte bi nga xam ne waa CUDIS di cadre unitaire de l'islam Sénégal ak tamit plateforme jàmmi réew mi ñoom ñoo xam ne fitna dong moom moo leen yitteel nañu xool euh, ci Macky ak ay ñoñam ci biir culikaay bi di l'info Ousmane Sonko di xamle ne Macky moom mooy njiitu réew bi gën a bi nga xam ne nag moom la réewum Sénégal mës a am ndax benn yoon rek Macky Sall ginnaaw cong yi fi amoon mu daal di koy naqarlu déedéet Ousmane Sonko ne loolu du mës a am ndaxte Macky moom moo fi indi fitna googu Macky ak ay ñoñam la ñu gëm moom mooy ne ñu fitnaal ko ñu xas ko ñu saaga ko loolu moom moo koy bégal loolu moom moo tax ba ñu koy def saa su ne loolu moom mooy tax ba kii di Ousmane Sonko ne alam mukk dee rek wante moom du mës a xaatim li nga xam ne moom mooy sàrt boobu le mandat di ñëwaat ba léegi ci ay kàddu yi nga xam ne kii di Ousmane Sonko daal dina koy fësal ndaxte moom daal dina gis ne ñii nga xam ne ñoom ñoo nekk ci boppu réew mi dañu ko bëggoon a faat kon nag tey ji moom képp koo xam ne danga ko wokk dina la xuri kon charte de non violence bi xalaatu gaa xaatim ñu daal di jukki ak julikaay bii di waa grand ci affaire Miss Sénégal ndaxte démb am na ci lu tolloog ñetti téeméeri plante yoo xam ne daal nañu koy yóbbu ci kanamu procureur waa grand place di ñu xamal ne soxna yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ay mouvement ñoom ñoo jël décision gi ni mel ñoom ñuy xamle ne fu mu nekk nii dee rek wante dinañu dem ba jeex dem ba ngeer ngir ñu daal di indi bépp leeral jëmale ko sàkku woon uh, Miss Sénégal bu atum 2020 wala tàggat yaram dañu koy jeexale stade yéenekaay di ñëwaat ci wàllu Ligue des champions du ñu xamal ne démb PSG dañu ko daan wante nag daal dinay qualifié City Real ak tamit Inter qualifié nañu ci wàllu huitième ci biir colikaay bii di record suñu naataango yi di xamal ne Crépin Diatta moom du bokk nag ci wàllu Coupe d'Afrique des Nations gi ñu dëgmal ndaxte dafa am gaañu-gaañu ci wàllu oom bi loolu nag moom moo ko nar a xañ kan uh, bi ak tamit uh, barrage moom muy yëkkati ay kàddoom jëmale ko ci combat gi ñuy xaar ci diggante Alioune Seye 2 ak tamit Zos moom mu daal di gis ne ci combat boobu Alioune Seye 2 mën na cee génn ndaxte moom ci technique taxaw na te it lépp lu muy def da koy defee ak xel lii moo nekkoon mbokk jëlukat yi li gën a fës ci biir ëculikaay gii ñu leen di ñaanal jeextalu jaam. Mesdames et messieurs, bonjour. Le retour du poste de Premier ministre et le refus d'Ousmane Sonko de signer la charte de non-violence, commence par nous dire que le président de la République, Macky a informé hier le Conseil des ministres de sa volonté d'initier une révision de la Constitution en vue de l'instauration du poste de Premier ministre. Et cette restauration, qui vient ainsi adapter l'organisation du pouvoir exécutif à un nouvel environnement économique et euh, sociopolitique, s'accompagne d'une nécessaire requalification des rapports entre l'exécutif et le législatif, notamment dissolution de celle-ci dévolue au président de la République. Macky Sall remet son fusible. Ce sont les dires de notre consoeur Mariam Digo dans Sud Quotidien. Elle ajoute qu'à un peu plus de deux ans de l'élection présidentielle de 2024, les supputations vont encore aller bon train sur la succession de Macky Sall. Nos confrères du quotidien Le Soleil nous parlent également de ce retour du poste de Premier ministre. Le projet de loi portant révision de la Constitution a été confrères de l'Obs nous relatent l'ambiance qui a prévalu hier en Conseil des ministres à l'annonce du retour du Premier ministre, une annonce qui a médusé les différents ministres. Nos confrères reviennent également sur les raisons profondes qui ont motivé la volonté de nommer un nouveau chef du gouvernement. Dans le journal Enquête, nos confrères qui nous parlent également du retour du poste de Premier ministre nous font savoir que la suppression de ce poste était

gouvernementale, le président Macky Sall revient sur sa décision. Et maintenant, la question que se posent nos confrères du journal critique, c'est de savoir qui sera le titulaire du poste. Dans le journal heures, nos confrères se posent la même question. Cependant, nos confrères lorgnent du côté de Amadouba. Notre confrère Hassan Samb du journal Réumi Quotidien, lui aussi, parie sur Amadouba, car selon lui, Macky avait déjà trahi ses intentions d'aller vers la nomination d'un a général de Benno Bokk Yakaar. L'autre sujet à la une des quotidiens, c'est forcément le refus d'Ousmane Sonko de signer la charte de non-violence. Sonko campe sur sa position, nous disent nos confrères du journal Sud Quotidien, s'exprimant lors d'un point de presse tenu hier, le leader du parti PASTEF a réitéré son refus de signer la charte de non-violence initiée par le QDIS, le cadre unitaire de l'islam au Sénégal et la plateforme Jammi Réwmi. L'ancien candidat justifier sa position est revenu sur les différents bras de fer qui l'ont opposé au régime en place depuis sa radiation de la fonction publique jusqu'à l'attaque de Ziguinchor. Dans le journal L'Info, nos confrères écrivent qu'hier Ousmane Sonko a asséné des vertes et pas mûres au chef de l'État Macky Sall et à ses partisans car selon lui, Macky Sall est le président le plus violent que le Sénégal ait jamais eu. Ensuite, Sonko a demandé à l'assistance si on a une fois entendu Macky Sall condamner la violence contre Selon Ousmane Sonko, on ne l'entendra jamais parce que c'est Macky himself qui les envoie. Il ajoute que les partisans du chef de l'État ont compris que la meilleure façon de lui faire plaisir, c'est d'insulter et d'attaquer Ousmane Sonko. Il a été victime d'attaques et on a vu le chef de l'État Macky Sall mettre en garde l'opposition et jusqu'à présent, Sonko s'offusque de ne pas entendre la réaction du cadre unitaire de l'islam au Sénégal. Dans le journal Le Ils ont tenté de m'assassiner, a-t-il déclaré. C'est d'ailleurs le titre qui barre la une du journal Le Mandat. Tout cela pour dire que Sonko déchire à nouveau la charte de non-violence. Affaire Miss Sénégal, Wagrand Place nous informe que Amina est submergée par plus de 300 plaintes accusées de faire l'apologie du viol. Amina Badiane est dans le collimateur des féministes. Des centaines de mouvements de défense des droits de femmes ont déposé leurs dans cette affaire de viol de Miss Sénégal Terminons par le sport Ligue des Champions PSG battu mais qualifié. Nos confrères du quotidien du sport Stade nous parlent de City, Real et Inter en huitième de finale et le Dortmund éliminé. Dans le quotidien Record, nos confrères nous donnent de mauvaises nouvelles concernant Crépin Diata qui est forfait pour la canne et les barrages à cause d'une rupture des ligaments croisés du genou. C'est tout à vos